sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara ci bis bu tedd bi ñu jagleel ko kilifa gu tedd gi di a Cheikhu yu booloo mépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa nga xam ne mooy alxalifatul aam li taifa al muridiyya ñu ñaan yàlla yàggal ko fi lool mu àggale mboolem ay sembam di nuyu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mu nekk ci bopp kër Serigne Saalix di ko ñaanal moom itam li ñu ñaanal Serigne Muntaxa ak yàgg fi sottal mboolem ay naalam di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Saalihu muy góor muy jigéen di nuyu mbooloo mi teew mépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou njaay mi nga xam ne moo ñi mu àndal ñoo taxawal bis bi di ko rafetlu bu baax di eh, di leen ci ndokkeel di wax ne yàgg nañ ko fekke waaye gis nañ ci ak jëm kanam bu baax ndax fii ci biir saal bi ngeen ko daan saal bi daawul fees ci tàmbali mu dem ba xajatul ci kër gi génn ci mbedd mi loolu ak nongu la loolu nag suñu abdu ñu ci ndokkeel di wax ne nit ñi de am nañ pëstéef waaye yéen ñi leen woow itam pëstéef yi ngeen leen woowe moo yokk mbooloo mi ba mu toll nii bu ñu ñëwoon gis ci leneen lu bokkul ak sëriñ bi yaakaar naa agsi fi mu agsi kon loolu leen sëriñ abi Abibu Jóob wax léegi mooy ngeen fexe ba lépp ni ngeen ko defee rek dara bañ cee dugg ci àdduna loolu mooy li jëmale ibn Hakim daf daa wax ne lu yàlla taxawal taxawu ko ne àdduna nag lu mu taxawal taxaw taxawal ko yàlla lu mu taxawal da koy taxaw àdduna nag lu mu taxawal bu taxawee ba ca kaw mu taxawal ko yàlla rek mooy li am sol laytaay am bi rafet lu waxtaan wi nga xam ne Serigne Abibou Diop def mel ne suñu xaman ne noonu noonu la demee jaru ñu fi jël kàddu waxam ëmb na lépp lu ñuy waxaat biiram lay dugg waaye wax ji làmb na lépp lu mat moom ci dolli ko it moom suñu suñu suñu sëriñ la ndax moo ñu doon jàngal alxuraan ci kër sëriñ moo ñu jàngal ba ñu xaw a sori doo ko dem jàng yi ci daaree alxuraan sociologique année 1975 76 moom mii booba mi ngi ci kër gi di xëy di jàngi ko sëñ bu xam-xam su wàccee ñëw di jàngale alxuraan nun ci ñim doon jàngal ci la bokkoon su masaane ñëw ba agsi ci buntu kër gi dañ koy kar fekk mu naaj naa ko abib mokkal mokkal naa loolu kon koy rafetlu bu baax fàttali loo xam ne moom mii baayam li mu koy jox sëñ bi waxoon na ko te loolu képp koo xam ne ndaw nga lu ci ñuy def ci yow ak a dindi loolu war nga ko def ngànnaay loolu mooy ne woon so soo demee bu ñu la sàmmloo na nga sàmm bu ñu la jàngloo na nga jàng bu ñu la nelawloo loo nga nelaw karna nag kon loolu mooy murit ni mu war a mel loolu nag moom mii yi mu tudd njàng mi njàngale na ci sama kanam kon am na loo xam ne itam euh, xew na ci kër gi loolu su ma juumul 1976 la woon xale boo xam ne citerne bi nekk ci ginnaaw ko siñ xale yi dañ fi daan dem lu bari mu duy ndox ba fees keroog benn xale bu sant jenn moo dugg ci biir faatu kër gi boobu xumbagul bari nekkuñu fi sëriñ biit booba lim daan toog bariwul waaye moom mi keroog moo jël ab raadu dugg ci biir di jeex xale bi man sax li ma gën a jaaxal mooy nu mu mën a duggee ci ndox mi nga génne xale bi génne ko yanu ko jaar ak moom ci biir kër gi loolu bi njàmbaar bu rëy goo xam ne ba léegi ngi koy fàttaliku ci moom kon day mel ni sàmm kooku mu ko waxoon lu yaakaar ne mu gën a métti sàmm kon sëriñ bi ñu ngi rafet waxtaan wi bu baax di ñaan yàlla barkeel sa xam-xam defal la tawfeex xol yëpp tooy na ci waxtaan wi li ma ci gën marqué nag mooy loolu nga wax ci gone googu doon xeex ne ko boo euh, mënta muñ bay xeex bu duggee ci xeex bi xel bi dafa bëggoon ak njàmbaare lool yonent bi daani wax ne yàlla dafa bëgg ak njàmbaare donte sax jaan dafa tëb nga gaaw rey ko loolu njàmbaar googu dafay dégloo yàlla maa ngi fàttaliku xale yi ku ma ci mas a joteel ba am lu nàcc lu génne ci kooku rek sëñ bi ci waxtaan ak soxna Mati ne ko moom de jàmbaar rek daaru mustem googu de moo sañoon du ko jëme ci gone yi waaw loolu yépp ay zikriyaat yoo xam jataay yu mel nii dafay am solo lool ñu di ko fàttaliku kon ngi leen di ziyaare ci bis bi nga xam ne mooy bisub weeru weeru rajab bokk weeru rajab weeru rajab di weer woo xam ne weeru barkel weer woo xam ne mu nekk ci digg at ashhurul hurum yëpp taqaloo ba mu des rajab rajab beru moo tax ñu di ko wooyee rajabul fard ci weeri sëriñ bi weer yi mu fonk lool loolu di mat ci taalibe bu nekk mu mel ni liggéey bi mu doon liggéeyal yonante bi ni mu ko séddalee lii di ay tagg lii di julli ci yonante bi bu agsee ci weeru rajab ci la euh, tagg wi di jeexe julli ci yonante bi tàmbali loolu ab liggéeyam noonu la ko séddale woon ne madaxtu xayral xalq muharrami ila intisaafi alaami za takarrum lahu salaati wa salaami min rajab li xatmi zil xijjati nixmal muntajab tagg naa yonent bi di tàmbalee weeru muharram ba at mi xaaj te mooy rajab di rajab teroo ma tàmbali di julli ci moom ba sil xijja muy weeru tabaski jeex sitta bi mat ni sitta taatihi batta maa ci saa kon weeru rajab day marqué lu am solo ci jaar-jaari sëñ bi ak liggéeyu sëñ bi moo tax suñu sang bu tedd ba fonkoon ko lool muy Cheikh Saalih radiyallahu anhu sëñ bi ne man la man la kanil akramu fil fardi rajab am lii kaman minhu yafi xayru ajab yàlla may na ma ci weeru rajab may goo xam ne day wane ne moom luy kéemtaan ci moom lay may moo tax kon sëñ bi fonkoon ko lool Seexu Ahmadul Xadim daan sanc kër ci la koy sanc daan maye soxna ci la koy maye buy tàmbali ak liggéey ci la koy tàmbalee suñu royteef bii ak Seex Saalix masaan di tàmbali ci la koy tàmbalee li muy àggale it ci la koy àggale loolu ñu miin ko ci lool kon loolu ñu bàyyi ko xel wax na sax ne am na jamono boo xam ne moom sëñ bi bu weeru rajab agsee dafay daj ji néeg yi ngir sanc ci weeru rajab moom sëriñ bi di ñuy fàttaliku bis bii ci moom la jóge ndax këram fa daan dajale mbooloo mu bare bare bare di joxe ay dog di jàng alxuraan dafa jàng xasida nii nga xam ne nii lañ koy def ci jataay bi loolu teewee naa ko ay yoon xam ne mbooleem ñi jàngale alxuraan ci dëkk bi Tuubaa si bari dañuy ñëw fekk si loolu itam xel koom digle woon na ko bu def nañ ko ay ay ay yoon ci dugal loxoom digle kon ñu xamee ci ne kon bis bii bis la boo xam ne moo ko tànnal boppam laata mu fi moom sëñ bi nag a Cheikh Saleh ñu xam ne euh, li ñuy wax alkalimatu kalimatu moom bu fekkee mën nañ ko misaal ci kalimat al kalimat moom sëñ ab yi bu jóob ñuy jàngale xam nañ ko baat mooy moo li ko composé ay araf la ay silaab su fekkee moom mooy baat bi yéen ñii wala nun ñii di dongo yi mooy arab yi ko composé ñu composé baat bi wala xarf in yalzam fa aslun wallazi laa yalzamu zaidu ka taib baat bi araf yi ko composé woo ci xool nga xam ne boo wëlbatee baat bi sarf araf wa dem woowu arafu ndolle mi araf yi nga xam ne nag noo sarfoo baat bi moom du soppi ko na mel lay mel loolu mooy arafi cosaan kon yéenay araf yi cosaani sëriñ bi nga xam ne yéena ànd ak sëñ bi ba dara dul dara yéena ànd ak sëñ bi ba dara dara sëñ bi ëllëg nañ ko sant yàlla bu baax xam ne lu ci nekk taw feex na sëriñ Abibu Jóob ni mu ko waxee léegi sëriñ bi euh, li mu defar ci ay nit ñoo xam ne nekkuñu woon ci daara ji ñoo ëpp yi mu yi mu defar dañ ne ci daara ji ne xam ne li daan dikkal ay ziyaare bis bu nekk kenn ku nekk jataay bi ngay am moom am na luy dugg ci loo xam ne ci giir dund ci ngay jube ci ngay gindikoo ca ngay dox bu ñu ko doon lim ay junni junni junni lay doon kon loolu ku yàlla taw feexle jamonoon ci ak moom bëgg ko Euh, loolu dokkat yu rëy rëy gis naa jëmm yoo xam ne sax mësuñoo gis sëriñ bi waaye ci ay daayira yi ñu ko taxawal lañ tàbbi waaye ñooñu ba ñu nekk ay royukaay lañ ko yoo xam ne soo leen gisee da ngay jàpp ne ci loxob sëñ bi lañ la seen biir gun loolu nag tarbiya bil xaal moo ko mën a def loolu yàlla may na ko lool ngeen xam ne eh, yéenay bagage yi sëriñ yéenay àndandooy sëriñ yaa xaadimal muxtaar yi laa tam sa sax bahu nit ak bagage am lu ñu taq kenn mësul gisul kenn mësul gis ku dugg ci oto ñu nangu mu dem ay bagage bañ nit ku muy dugg fa lay di dugg moo tax yónnente yi kuñ ci masaana xeeb walla ñi la ñi nga àndal bu dul woon ñoom ñu gëm la dañuy wax ne bu baax na bi toor bi moo xin bañ ko ko waxee ne ko bu dul ko nag ñu ñi nga àndal daf ne mënuma leen jële ci man yàlla am boole am na naka noonu sëriñ bi li mu nekkee njëlbeenu goote gi ba murid yi nekk seen xaal ñu di ko ko jàmbat ba am ñu ne ko sax boo mënoon fexe ba daqali ko ak ñoom ndax xatal nañ kër gi la nooxeen tontu woon loolu la leen tontu kon ñu xam ne murid yi ñooy bagage yi sëriñ bi bagage borom jëm fa lay jëm sëriñ bi ne kataba allahu tabaraka wa taala ana bayt allahi alharam tarfauhu almalaika ila tuba fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa al amtiati allati yakunu maahum ay al muridina sadiqin loolu mooy bagage yi sëriñ bi yor murid kon bi li ñu war suñu digganteeg moom mooy roy ko roy ko jéem a xam waaye xam lim bëgg nga tege ci loolu mooy li ñuy war a defee akub waaye xam bi du farat ci murit li nga xam ne yàlla kenn mënu koo xam naka noonu nitug yàlla kenn mënu koo xam des koy tey si xam lim bëgg jaar ca roy ca man caa jar bu ko defee roy googu ni e, yàlla waxe ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonente bi am na lu ngeen mën a roy ci moom muy lu rafet loo xam ne su ngeen ko royee da ngeen jag naka noonu itam ku fi jëmmal yonent bi ni war a royee yonent ko sa mbokk waaye sëriñ bi daa daa wax ne e, seytaane bi mu demee ba naagu ci ay mbiram dafay fekk murid yi di leen wax ne di leen jéem a roy ci kii ndax ni mu mel bu ngeen ni mënoon a mel jërul ngeen fi ñëw waaye mu ne kon loolu seytaane daf ca bëgg a jaare ngir yàqal murit bi muy wax loolu waaye nee na ki roy donte mënta mel ni sëñ bi itam ña nga xam ne royuñu dana leen kawe ci roy loolu misaal ñett nit ñu taxaw ñaari ñi gàtt kenn ki njool kenn ki gàtt ñaar ñu gàtt kenn ki di yuqamtu ngir tolloog ki njool bu mënta tolloog moom itam de moroomam mi gàtt bu yuqamtu ko dana ko sut kon roy sëriñ bi noonu la dem wa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bir rijaali xamidu roy leen sëriñ bi su ngeen mënta mel na mel itam waaye roy ga danga nga sa morom mi rëyu ab sëriñ nag fa mel ni am na ñett ci melokaan yoo xam ne benn bi la ñaari yi ko ci roy benn bi lañ koy roy sëriñ bi ni ko yàlla melal en tant que nit bi ni muy gislee ni muy sëqate ni muy doxe loolu yi de kenn ku nekk ñi la yàlla binde doonul li tax mu kawee ci nit ña wala ñu di ko tagg kon loolu desu ko roy ab sëriñ bim loola mooy bim bim bim nekkee nit rek ci jugagul bim jugee di dox ba àgg àgg waay ba yàlla jagleel ko ay jagle may ko ay xarbaax xarbaax yooyu dafa am ko rek muy kon ñaar yi nga xam ne mooy bi mu jugagul nekk nit kese ak bi nga xamee ne àgg na ñaar yooyu bu tënk dañ koy bàyyi ana ban la ñuy roy mooy bi mu nekkee ci yoon wi di dem te àggagul mooy yemu def ak mooy yi sëriñ Abib Diop doon nett léegi ci ak jaamu yàllaam ci jàng xasaay itam xam-xamam yooyu nga xam ne moo ko ak fa mu àgg may ko jikko yim làmboo maanaam jumtukaay yi mu doon jëfandikoo ba àgg foofu yooyu mooy yi nga xam ne moom la ñuy war a xool di ko di ko roy ngir àgg foofu mu àgg waaye li ci ëpp nag dañuy gën a jëm ca bu njëkk ba mooy col gaag doxin waag doxin mel noonu te loolu àggali wu ko fa mu àgg kon wala ñu jël xarbaax ya jagle ya yooyu itam li fekk àggoo fa soxalu la kon loolu kii roy sëñ bi ñett yooyu war na koy xàmmee bu baax a baax na góor gu xoromu daan wax sëñ Daawuda Bey daa xorom lool mu ne sëñ yu bari ci attaay yu woyof ji ak tiim bi lañ koy roy waaw attaay yu woyof ak tiim bi mu daan xamuñu ne loolu ci nekk ginnaaw nit bi ki bëgg lu woyof ki bëgg lu ko loolu nit en tant que nit lii nga xam ne mooy tiim bi itam bari na ñoo xam ne dañuy gis muy tiim ñu jàpp ne noonu lañu war a def rek ngant yooyu yëpp roy te amoo ràññee dana koy yóbbe murit bi ñu di ko xamee bu baax a baax bu defee kon noonu ko sëñ Habib waxe rek dañ koy roy ci jaamu yàlla gi ci naafile yi ci werd yi nga xam ne mësul jël aw werd bàyyi ko bu mu mës a jël wax nañ ne mësu koo bàyyi daan ñu mujjee borom jël sëñ bi ci boppam moom Saalix def ko royukaay ci tomb bi may njëkk a wax mooy jaamu yàlla gi ak parlu gi ci dox ci yoonu yàlla bi ñi ñi gën a mi ne teel teelu ko ñi ngi ñaan mbooloo bi ñu ngir jëmi sëriñ Saliou gën a teewlu waxtaan wi ndax am na solo lool ñu wàññi jàllantu bi te gën a teewlu waxtaan bi bismillah mu mel ni kon moom sëriñ bi jël na sëriñ bu baax roy ko ci léppam mas naa koy laaj ci jumaay njaareem jooju ndax sëñ daana julli mu ne ma xam naa ko jullee benn yoon wala ñaar de lay doon nit ñi sonal ko lool mujj jàkk ci biir këram jàkk joo xam ne bu julli jotee dañuy na mbaar mu taxalool Mohamad Lamine way jur sëñ bi taxaw li xaam julli ñu tollale ak moom mu ne suñu jàkka yi sax de moom lañ ciy roy gis ne moom ak suñ chony bu kenn ko ne sa jàkka mënu nga ko tabax kon li ma bëgg a wax mooy roy ji ci ni doon jaamoo yàlla ak ba muy jóg di jëm ci boroomam jumtukaay yi mu doon jëfandikoo loolu mooy dëgg-dëgg roy moom nag ci jël ba ku ne xam na ne lim dund ak sëñ bi bariwul waaye mag ñi fekk sëñ bi nuuru gim nuuru sëñ bi ci ay jikko yi jëflante yéem na leen dañuy jàpp sax ci sëriñ bi dafa nekk moom jër bu yàgg ba ci nos yi nu daara ji euh, lépp ku copier ci sëñ bi muy jëlee ñuy jàngale Berlin fii jël ñuy tërbeewu Berlin fii loolu lépp novaamu sëriñ bi la woon boo xoolee histoire sëñ bi ni mu nekkee Touba ak mi Jolof loolu ab nosam la woon ba ci sax ñii nekk ci boppi daara yi ci sa koo ci xam ne sa baay wala sa maam sëriñ bi def ko daan teg ci boppu daara mu tànn la ngir barkeelu ci loolu xam ne roy googu ci la nekk ba yàlla àggale ab liggéeyam fi mu àgg saare ko fi mu fi mu ni mu tusaaroo nangu ko ñi nga xam ne ni la ko ni la ko nangu mu mel ni kon roy du am solo sëriñ tubaa nee na xamdan li rabbi xayri mu rabbi ak ramm qalbi bil iqtidaa maa ngi sant yàlla mi nga xam ne kuy tërbiya moo la dàq tërbiya te moo defar sama xol ba set ci roy gi nga xam ne lay roy yonent bi di jaar fi daan jaar roy mooy tax ki ngay roy mujj dem ba nekk ko moom isa anjabat ka xisaalumhu in kunhu yakun min kama yu'jibuk lu la jikkoy nit yéemee bul nekk di détaillé ko xool yow nekkal kooku nga xam ne moom la jikkoom yéemu bu yàggee da ngay mujj mel ni kooku benn waykat nee na bi abi iqtada adiyun bil karam man yushabihi abahu wa zalam ñu adi yu de roy ci baayam ak baax mujj mu mel ni mu mel ni baayam kon loolu ñu xam ne suñu jariñu ci sëriñ bi foofu lay tàmbalee te mooy ko roy ci ay jikkoom yooyu nga xam ne mooy li ko ñëpp bëggee mooy li ko ñëpp topp bu defee ñu tomb bu mujj ba bu mu njëkk wax muy bu mujj bi mooy ay jagleemam ak ay xarbaaxam mooy bi mu demee ba àgg ci yàlla te yàlla may ko lim ko may may ko ay xusuusiyaat may ko ay jagle may ko ay xarbaax loolu danañu yokk pësteef nu ñu xam ko waaye nag mënuñu tëb àgg foofu kon bi ñuy gën a itteel mooy fam jaar ba am lool kon ñu ko bàyyi xel bu baax bañ a jël jëmmi sëñ bi ko nettalee noo xam ne li mujj doon li ñuy wax ustoora mel ni aw lépp ndax am na noo xam ne soo ko ne waxee day mel ni kenn koo roy léegi fi fi fi baax yi jaar ba am li ñu am fi la jaar ba li am li ñu am kon xam fi mu jaar loolu nañu koy bàyyi xel bu ñu koy leeral mel ni léeg-léeg nga dégg ci rajo bi muy waxtaan ci sëñ bi yu xóot yoo xam ne ngay mujj sax di laaj ndax moom sëñ Saaliwu mi muy waxtaane day meneen sëñ Saaliwu bokk na bu xamal li sëñ Muxtaar la bu njaareem Muxtaar si la bëkk nekk mu daan waxee ne mën de sëñ sëñ Tuubaa mi ma dégg ñuy waxtaane léegi dafa mel ni bokkul ak ni nga xam ne moom laa xam mel na ni léeg-léeg soo déggee ñennat di ko leeral bi ñu koy waxee day sax mel ni ay léeb yu fi nekkoon lay doon loolu nag mat di bàyyi xel xam ne euh, am na ci loo xam ne des koy sante yàlla waaye dee su ko waxtaan na xakim daf ne taan wu dafa am waxtaanu ëtt am waxtaanu pénc am waxtaanu ruum sa surga bi nga yor ci kër gi wala sa gardien bi wala ku mën a doon walla sa doom sax sa doom wala sa soxna def njuumte nga woo ko ci biir néeg bi di ko yett waxtaan ñi de ci ëtt bi mën nañ koo bañ a ëtt mooy ñi ne ci biir kër gi gardien wala sa mbindaan wala ku mën a doon def njuumte nga woo ci ëtt bi di wax ak moom ci pénc ba mën na ko bañ a xam tànnu pénc mooy ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi ci dëkk bi ñëpp daje ci pénc bi mu ne loolu waa dëkk bi yëpp la soxal waxtaan ci pénc bi mu mel ni léegi nag ngay gis loo xam ne taanu room la waxtaan ci pénc loolu ëpp nay def lépp loo xam ne sëriñ bi ñu koy waxtaanee waa kër gi nee na ku fi ku fi nekkul na nag ku fi dëkkul nañu may bañ noppi loolu kenn warul génn waxtaan ci mbooloo ñu ko bàyyi xel bu baax xam ne may su koy sant yàlla waaye di su ko bàkkoo su ko tasaare def la wootoo wax ko am na ko masalaaj a laaj Cheikh Ahmadul Xadim ne ko ndax murit bi am na sañ-sañu mu jaamu yàlla mu def ko àddi sëriñ bi loolu ba demee ci mañ moo xam ne si ñëpp la xat mool mi ngi ci sëñ bi ne ko yàlla de am na ay jaamam ñoo xam ne ku ko sooban lu lu lu seeni murit luñ def ci ci lu ñaaw sopp muy aw yiw waaw am na ñoo xam ne ci ay nitam lu seeni murit def ci lu ñaawteef bu soppi ko muy aw yiw waaye nag am na ci loo xam ne di su ko waxtaani des koy sant yàlla loolu di lu mat di bàyyi wa bandement yoxsam zikruhu xawsim am na yoo xam ne suñ ko asafee kenn wuru ko mu ñuy waxtaane mbirum sëñ bi sëñ tubaa ci boppam nee na bi anni abadan laa azkur tafsira kax li ahadin bal ashkur yow yàlla seereel ne ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu nga xam ne jaayante naa ko ak yow da am loo ma ci defal lu ko tudd mukk koy sant yàlla loolu euh, lim bindum di bari bari dana ko junju ja nangam araf yi tàmbali araf rek la ma musal ci mu yulli mbóot moo xam ne wuru tasaaroo wuruma koo wax yow mi nga xam ne jamono bu nekk yaag may may ay kéemtaan kon de yaakaar naa ne moom mi nga xam ne mooy ndey bil gi moom lépp bu demee ba am yoo xam ne bëggul mu tasaaroo yaakaar naa moom mii itam ñuy wax ci moom am na ci yu xóot yu baatine yoo xam ne mën nañuy yem ci li nga xam ne moo tolloog li nit ki mën a jariñu ñu di ko jox nit ñu ci ñu di ci jariñ kon nañu góorlu bu baax ci ni ñuy doxe ñu sax ci di yéenante jàmm di dimbalante ngay wax léegi lu am solo la mooy kenn ku nekk lu sa moroom nekk ci yitte ñu jàppale ko ci daayira kat Cheikh Gaynde Fatma mi ko mi nga xam ne ci moom la tasaaroo nañ ne keesu daayira sax daawul ñongu ñu di ko jëbbal koy wax ne nañ ko boole lépp ku ci am jafe-jafe ñu dimbale la ci taxaw dimbalante bëggante ak yéenante jàmm yi nga xam ne sëriñ bi ci lañu doon yar nañ ci góor góorgóorlu lu baax sax ci woy ci te fexe ba li ñu li mu li ñu nekkoon mu di ñu ci yar nekk ñu di ko gën a bëgg ndax nim ni mu ko daan waxee garab la ko saxal moo koy suuxat bàyyi ko xel bu baax jamono bu nekk yéen ngi ci jamono bu ñu wootee xel ko kenn du leen jiitu mënoon ngeen ne lii la ñu liggéey ba sëñ bi gërëm ñu kon li ñu li ñu sëñ bi gërëm doy na waaye murit du doy sëñ mën dumbee nga xamee ne ñu ngi teg xeeru jumaa ji eh, ne na sëñ Tuubaa fanweeri at waaye keroog añ yi ñu fa togg yëpp bokk financé wax ne moom lu ko ci waroon lu lu lu lu ci war moom moo ko waroon nga xam ne yëgatul sax moom la liggéeyaloon sëñ murit noonu lay mel ngi sant bu baax nag taxawaay bi bëgg gi lu baax di ko xencu yàlla ñu yàlla dëgëral kàttanal ñu li nga xam ne moom la ñu ànde woon ak sëñ bi ñu nekk ba bañ koy fekki wa axiru daawaana anil hamdu